benn bopp yaakaar yëpp ci Notto Diobass ndeysaan fas yéene dem waxtaan ak askan bi. salaamaaleykum bii ren. waaw ñu ngi leen di nuyu. ma teg ci sama bët muy délibération kër ak tool keroog gis naa mu defar fii téeméeri kayit ak ñaar fukk yoo xam ni délibéré na ko loolu gis moo jóg taxaw ci taabal bi rappel ko jox ko seeni borom ñi fi nekkul mu teg ko kon li di xamal mooy lenn ku ànd ak ki ma àndal lu la neex laaj. ñaari paires yi moyen lañ daan am ñaari paires yi moyen te booba yaakaaroon naa ni ñu dàq futal ci laa bokkoon te mosuloo am ñaar fukki dërëm bi nga fi ñëwee lan dégg ay millions barke yeneen tamit bi nga fi ñëwee lan dégg ay millions kon képp koo xamante ni da ngay nattable dama jàpp ni da laa xëy. man nag la ma la waxoon démb wax la ko tey moom laay félicité ba keroog may faatu mooy maag yow ba pare soobee yàlla. aéroport bi moo nekkoon Dakar bu ngeen yàkkamtiwul kon boo ñu soxoree woon doo ñu wax loolu. soo bëggee dem Dakar 30 minutes burul am nga dugg bi Dakar ñun xam nañ kon gàcce ngalaama. Ndeye Ndiaye joxal xëy na xam nañu ko bu baax sax waaye dégg naa ko li muy liggéey. mu ngi lay toog ma ne Ndeye Ndeye Kër Madaar wala ne góor ña mënuñu ko. yéen ñi waaw mais dama ne am am loo xamante ne bii dañ leen di nax rek dañ leen di nax may dama ne dafa am seen soxla doon wax day wax ni politique ñaaroo koy dox ñu ne baax ah, ma ngi wax mu ne kii dafa bëgg na ab teenam ba mu am ndox kii di gas ba du léegi ma ne nan ngeen gis ku gën ak tasum teelam ba mu bënd mu leen gaa leen naa ndox maa ngeen dem naa dañuy xaar ku gën ku leen candidat Alioune Sarr duñ ko nuyu de waaye dañuy wax ni yéen waa Ndiiré candidat bi ñu àndal ak a bëgg Ndiiré ak a yéene Ndiiré ak a gëm Ndiiré ak a yàqamtee am ndam lu yaatu ci biir ndam lu yaatu loolu suñu candidat bëgg di ngeen ma ko jox ndax nag bëgg na ndiireen de man de sama nopp dafa tudd ndiireen ba tàyyi man ma fekke mu ngi nii toog du ma ko mel wallaahi la kon nag loolu bàyyi leen ci maa ngi nuyu ñoom Modou Seen Amadou Touré sama càmmeñ yi Ibrahima Moussa di nuyu Ramatine ñoom ñëpp maa ngi di nuyu bu baax délégation bi ñu ngi ministre la ren nday mbeng yéen ñëpp ñu ngi leen di nuyu xam nga suñu candidat day def waaye moom dong bu ñëwee fekk fi ñu fi ne na sëkk eh? waaye day bëgg a àndat ñi mu àndat ba ñëpp xam ni wéetul ci yoon wi mu jëm te it nag ku ànd ki ñu àndal Baye Ba wax na ko jërul jiit jërul ragal xam nga lan la ñuy soxla nañu ko ñaanal te wóolu ko rek ko bu bés ba nañu jël carte fas wii ñu dugal ko ci biir amul leneen xoolal bu ñu tontu up. kenn kii fi nekk tey ñu xëccoo ak moom dañoo xamul seen bopp rek waaye bu ñu xamul seen bopp du def ni ñu def kon jàpp leen nañu dem le 23 ñu am ndam fii ci diiree génn ci waa ceeta ko bi man de ci benn côté rek lay wax waa Ndirène monsieur le ministre man dama wax ak waa Ndirène parce que je sais que Ndirène a déjà dit oui à monsieur Alioune Sarr laa moo tax ma wax ko ma ne ko Ndiréne vous a dit loo mun loo doon def ci Ndiréne yokk loo def loo ci Ndiréne def ko. parce que lu ma constaté le ministre monsieur le maire de notre Diobass le premier maire monsieur le premier DG monsieur le premier ministre. leen loolu waaye daj leen loolu. ci biir Jobaas parce que moo fi njëkk a nekk directeur général te tudd Jobaas laa wane. de ce temps Indepraat bi ñu jëlee Indepraat ba léegi à ce que je sache premier directeur général mu ñëw mu ne premier maire mu ñëw mu ne premier ministre loolu monsieur le ministre monsieur le maire. nekk naa la ma dañ sant suñu waajur bu baax a baax. gëm naa slogan son slogan mooy la jeunesse de respecter seen waajur yi ay kilifa yu mag ci réew mi ma ma woo monsieur le mu jox ma ndigal ba pare mu ma demal bu ma demee kilifa yooyu nga ñoom ñànk réew ma fekk ñuy jëw ministre bi duñ ko doon jëwee de wallahi laa ma fekk ñu koy jëw gisuñu ma parce ak seetu yooyu saytu ñu ni Alioune Sarr maye yàlla la kon ñu ngi dëkk Diobass ñoo xam ne dafa ñu Diobass Macky Sall wóolu ko Moustapha Niass wóolu ko muy am xam-xam am yar ñun waa Diobass ñun ñun ko puus ñun ko jàppale numéro amaluma leen sens interdit ba minuit bi une heure de matin fu ma waay woo ma wuyu la. lépp koo xam ne formé naa la ba pare jëlal say matériel nga jaay nga tegaat say produit nga war a for liggéeyaat jëlal sa téléphone nga ne ma def daal fàtte naa nangam. woo ma ba xam dinaa la jël wala du ma la jël. dama jóg di jàppale leen comme ni leen Alioune Sarr di jàppale. waaw waaw dama leen loolu waay. dama duma benn benn sax. ak yow la neex mais du si Alioune Sarr du si madame Wilane mi nga xam ne moo leen di former parce que kii dafa jóg pour développement dafa jóg pour jàppale jigéen ñi dafa jóg pour doxal lii doote gabaat di leen wax waa jeune yéen jeunesse su Ndiiré dama bëgg ngeen xib ci seen bët xam ni yeewu ngeen xam ni am ngeen ambition am ngeen pas-pas waaye nag dama bëgg ngeen jublu ci ji métier bi nga xamante ni pour féetali seen ambition boobu pour féetali seen pas-pas boobu il faut que ngeen ñëw approché wu ci du métier. ndax monsieur le maire daf ko financé pour yéen dafa jóg mu ne dama bëgg a jàppale sama jeunesse su commune ci lan ci formation ndax balaa nga wax liggéey nga wax formation ku lay wax ne dina la wutal liggéey da nga ko wax ne. dama bëgg d'abord formation boo ko ñëwee ne ko mënoo ma wutal liggéey te aw formation lii pour yéen lañ ko ko fi tegal dama bëgg ngeen ànd ak mat ngeen ànd ak fulla ngeen ànd ak ngeen ñëw saisir seen chance parce que c'est une opportunité. le janvier ak jàmm nii ngeen ko defee ngeen takku teel a xëy jël bulletin bu am fas bi bulletin bu marron ngeen dugal ko ci ñaari journée yi.

kon kenn mun leen na bu fekkee tey ay nit dañ fi ñëw indi ay kaar ngeen lànk ni du ngeen dem toog xaar ñu ba heure bi am na lu muy firi loolu lu muy firi mooy li fi nekkoon démb moo fi nekkat ba tey ay gor ngeen ay nit ñu am pas-pas nit ñu am gëm-gëm te li may faraloo xale yi mooy toujours politique d'abord c'est un idéal maanaam ay jikko la d'abord ñooy ngànk politique bala nga xam valeuru ten ba ngay defar ci ab beureup da ngay xam mar naan lu mu signifie kon ci koy nga xam ñom lañu wara gannaayo a ci politique muy ngor muy bëgg sa dëkk bëgg sa réew muy fonk say wajur effectivement sa yu ma ñew ci ab dëkk damay wax xalé yi na ngeen fonk seen wajur parce que c'est la première valeur essentielle de la société particulièrement nak seen yaay yéen xalé yi particulièrement seen yaay yaay la leen di dégg man de lu ma am lu ma mën yàlla sama yaay. kon dam nañu dénk seen waajur fàttali ma seen waajur bu jigéen fonk li ñaar yëpp nag mais fàttali ma seen waajur bu jigéen ndax yaay li ma taj ci yéen kenn taju ko ci yéen. kon boo amee chance am yaay ñuy dund saa yoo xëyee demal sukk ci ay genoux nga yaay ñaanal boo amee métier am jom. su yaay ñaanal amul dara dara loo mën a yëkkati def jóg kon nii ren loolu laay wax le 23 incha allah soxna na koy ngeen organisé wu nii nga taxawe nee nga samp gaynde jaay comme ay gaynde njaay ngeen moom waan nii ren nekk dëkku njaayeen kon war ngeen wane yéen ak gaynde benn ngeen na ngeen mobilisé wu yëkkati ba ci kaw teg ci jarul ngeen leen di sëlëm nag bu leen sëlëm nag jarul jarul sëlëm jël ci la ba ci kaw rek teg ci suuf rek ngeen won leen ne fii am na borom borom bi mooy kan mooy intérêt Ndiirène mooy intérêt Ndiirène ku leen ci jàppale nga jàppale ko mooy intérêt Ndiirène mais politique donc loolu laa bëggoon fàttali la jeunesse c'est un panier de valeurs campagne de la campagne électorale se déroule très bien dans la commune de notre dans d'excellentes conditions il n'y aura aucun problème de violence dans cette commune nous nous connaissons parfaitement bien nous faisons des élections ici depuis 10 ans et nous les gagnons depuis 10 ans nous les gagnerons également le 23 janvier Inch'Allah dans la discipline dans le calme

ñaanal ko yomb na ñaanal ko yomb na parce que nit ku def lu baax même bu la ñaanul yàlla suñu kilifa loolu la wax sànq ma bëggoon koo jot ngeen dégg ko am ni moom na mbégte am na bi nga xam ni monsieur le maire monsieur le Aliou Sall mi ngi a jot rek waa suñu kilifa suñu lam ko waxee sax mënee moo ko noonu dégg na kontaan na li nga xam ne monsieur le ministre Aliou Diagne na ko dégg ngoo jëlee. yow la kontaan teg yow la courant bi ñëw naa bi ñëw lépp mi ngi daal ñuy gis ko ma wax ko. projet yi am ko yu jafe na de bëgg ko yomb na mais am ko jafe da nga fee indi ñaari projet comme ni ko sama neen yi waxee def bi loo xam ni ñëpp ko bëgg waaye kenn mënu koo am ñu di

waye di nuyu ki nek ci sa ñepp xam ma ak mom ma yag ak mom muy sama jigen gore lolu ci man lolu wa mbo jeen mu di ki nga xani mo moom di Adja Ndeye Fatou jay di nuyu delegation bi nga andal ñepp adjo au maire Mamadou sen gis na ko fi gis ay kilifa yu bari comme ñom Québec ñepp ma ngi leen di nuyu di ziar euh, tay wax ji man na ni du bari ndax tey lii sax programme woon ba woon ñu programme woon mooy ministre ñëw euh, def li nga xam ne moo di ziar kilifaam bi nga xam ne moo di chef de village bu jógee dem xool yi li nga xam ne moo di xool yi waaye ministre dafa nekk koo xam ne ni dañ koy xëccoo fu mu jaar gaa yi ni ko doo dem ba far mu guddee te incha allahu waaj na leneen loo xam ne dafay ñëw fii ci Mbodiène ñu def ci meeting bu mag boo xamante dañ koy sargal ngeen li mu def ci Mbodiène ndax nag jar na ko. di leen wax ni tey am nañu mbégte lool ci teeru leen fii ci Mbodiène ci ab doxantu rek boo xam ni dañ ko tuddee woon sax tournée économique waaye nag métti na bu de. ma ni métti na bu de monsieur le ministre Mbodiène métti na gul ab doxantu la woon wala tournée économique tey. moom lañu doon def mais meeting amagul. waaw lundi wala dimanche ah d' accord d' accord kon d' accord kon ñu waajal ko lundi incha allah léegi li am solo mooy ñi njëkk a wax dañoo wax lu bari am na ku fi wax ni monsieur le ministre créé na fi 120 emplois am ñu ni ëpp na ko ndax 120 emplois unique la emploi direct la. mais sama bàjjen Rokhaya Mbodj bàjjen Ndeye Daba nee na ma omo yi nga xam ne mi ngi dugg ci biir dëkk bi dem na ba créer ay emploi ci jeeg ji ci tayiram boobu di liggéeyal soxna maam Jaara Bousso ba ci la ñu xotti seen hôtesse yooyu ñu yóbbu Porokhane tey nag xale yaa ngi frigo ay waalo waalo ngeen yéen mbajik naa togo da mbakk seen maama da woon naar naan wayli wayli mu naan ku ni wayli wayli tee yéen laay waxal talaatee day ndeer talaatee ndeer ñun ay waalo waalo lañu faraak tige faraak fay nange faraak bopp joor yéen mbajik ma ca ndeer naa togo aram bakkar nañ mu njëkk angaay dund ku ko lekk déggu Macky Sall bi mu yabal ay ay leneen ni na ngeen xas leen askor day xas man damay xas mboolem man maay premier chauffeur Mbodj weddi leen weddi leen premier chauffeur Mbodj te moi Modou Mbodj ku fi am permis rek sama ginnaaw li ma fi for ci dëkk bii ak li ko wër kenn ñu xajuñu ci quarante monsieur le maire li nga def fii Mbodj mënut a ñàkk de ñeneen ñi mën lañoo laam-laamee lu tax waaye fii dëkkub Serigne Saliou Mbacké la kon lu ñu am mën nañoo am lu kenn amul ci biir Jobaas man de mën naa koo seede ndax damaa doon pour tànk ànd ak ñoom ak waajur ya dem maam ma jamaat maam ma maam Matar Mbodj maam ma dikkee ñoom Baye Daouda Mbodj Baye ma jama Mbodj ñoom ñoom Baye Modou ñëpp dañ daan ñëw got man ma doon lu tuuti man rek maa ci doon jigéen yor karne waaye cofeel gi ma amoon ak boo jéen yàlla xam na ne loolu mooy law ba tey kon boo jéen man nañoo am làmp yu ni ray am tool yu naat ndax sëriñ yu da a gërëm yàlla xam na ko kon loolu nag takk yàlla la Alioune Sarr loxo li nga def fii boo jéen wallaahi say gis la ñëw ci yow ñu ne lañ 2019 njuumte la man de gëm naa ne njuumte la te njuumte loolu dinañ ko corriger ci élection yu lo locales yi ndax lii ñu am ca kenn amu ko ñu defal leen luñ defalul kenn ñoom ñu gisal ko seen bopp defe naa ne du jaxase lenn ak Benno Bokk Yaakaar damay gërëm ñii fi ne Cheikh Fakala Karima ay jàmbaar ngeen tàllal loxo ndax Cheikh daf ma jàpp rek te réew dama bàyyi te jàppewu ma alal jàppewu ma def-def jàppewu ma lenn damaa jàpp ngir jëmm Serigne Touba jàpp ma ngir liggéey bi may liggéey ci développement te moom mu gëm développement kon Cheikh jërëjëf gàcce nga laa ñaari fan am na ko sama kër ba démb barki démb fa la fanaan démb mu ànd ak yi ba tey jii kon Cheikh sant nañ la gërëm nañ la bu doon alal da koy bàyyi na jigéen ñi dañ leen di gërëm yéen ñëpp maire Maram Diagne laa koy jiite moom mi jiite groupement bi maire Ndeye Daba maire Khady Diop ñoom su koy Fall Ndeye Awa yéen ñëpp ci tëmbooj dañ leen di gërëm sant leen fi ngeen jàpp fi la bu leen ko bàyyi boo jëndee am nañ ci yaakaar yàlla xam na ne da ngeen di sargal Alioune Sarr waaye lii rek sargal la ndax wax nit ki ay jëfam woyal ngeen ko taasul ngeen ko jàngal ngeen ko te taalifal chef de village Serigne Maguette Mbodj nuyu ko ziar ko gërëm ko ci sant euh, kaddu yu rafet yi mu rotal ñaanal ñu ñu ngi ñaan yàlla wëral ay cëram ko ci kanamu njaboot ji. di nuyu kilifa yi Mbay Mbodj ñu koy nuyu di nuyu Mbay Ann di sunu wajur di nuyu Maguette Mbodj imam imam ñu lay nuyu leen ziar jërëjëf di jégalu kilifa yi toll yéen ngeen toog ba heure bi ñu leen di jégalu leen sant di nuyu oustaz Kang Mbodj di sunu xarit wax na dëgg 2009 fii la ñu ñaanale woon jërëjëf di nuyu Modou Anne di nuyu Ibra Mbodj di nuyu Mor Mbodj également sunu wëlëre jërëjëf Mor di nuyu le dynamique jeune Cheikh Mbodj numéro numéro 2 xaw ma numéro 1. numéro 2 numéro 1. parce que Cheikh Mbodj donc représentant du chef du village ñu ngi koy nuyu vraiment di rafetlu également ay kàddoom di wax ne Cheikh Mbodj moomu c'est vraiment un modèle à présenter à la jeunesse ndax boo nekkee ndaw nekk ci ab dëkk le toll chef de village ne kàddoom yow la ko jox loolu misaal la message donc Cheikh c'est un exemple à vendre à la jeunesse dafay wone ne gànnaaw na jikko yo xamné moy ci do kilifa et donc les jeunes voici un exemple en l'occurrence Cheikh Mbodj de Mbodje nekk aussi jàngalekat kon mel ni xalé yi euh fi ci Mbodjeen Mbodjeen joxe na exemple né amna na confiance sur la jeunesse jërë ngeen jëf di nuyu sunu responsable yi euh,

ndaw sama digen soxna Ndeye Fatou sama mbokk ànd bokk jëmuwaay également soxna Sokay Fall également Serigne Cheikh Anne également ma nuyu bu baax a baax a baax sunu xarit Assane Gueye Assane jërëjëf gis nañ sa teewaay également sunu wet di jeexal nu yooyu nag jàmbaar yi nga xam ne ngeen tànn ci Mbodiène Karim Pakala Cheikh Cheikh numéro 2 ak Khadim yi di leen gërëm bu baax di wax ne lii ngeen wax sànq toutes les forces de dajaloo nekk benn tànk loolu mbiru yàlla la parce que bu ñu demee chef de village bu ñaanal ñu ñëw fii imam toog kilifa yi toog ngeen dajaloo toog

inshallah na def meeting à su boba nag su boobaa nag ku yoy ku yoy bu loxantu mbooy yi ku yoy ma bu loxantu mbooy parce que la puissance de Benno Bokk va être démontrée à la face du monde kon gars ñu engagé ko Bakar. waaw. ñeme a baax ñeme ko. waaw. jeex na. dama dégg eh, sunu xarit Baye Modou. di sunu waajur. Baye Madiama. nekkoon sunu waajur nekkoon sunu sëriñ. ndax ñoo ne ci ba tey muy ñaanal. ni ma ko gisee sànq mu aalu. wax waalo waalo.

ay gor pire ñoo fi dëkk moo tax it ànd bi day jur résultat parce que ay gor bu ñu àndee mais yàlla dañ jàpp kon day moo du jërëjëf jërëjëf incha allah ati nag na gën a yaatu kon tey du ma sori le 23 dimanche bii di ñëw bu dee ah ñu mobilisé wu rek teel mais li ma bëgg daaneel sama kàddu mooy.

ñu gën a ñëw waxtaan ak askan bi jërë ngeen jëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. bu baax. bu